asalaamaaleykum suñu mbokki internet yi di leen nuyu bu baax di leen ziar di leen bëggee ñu suivre sur Wassare Lamb kon niñ koy defee à chaque fois rek seen euh, li nga xamante ni moom mooy seen jàngatu làmb tey nag euh, suñu première partie euh, dañuy dañuy dañuy dem ba fi nga xamante ni moom mooy Gambia parce que tamit nee naa leen Gambia ñoom tamit dañ cee bokk tey nag ki ñuy waxtaanee mooy xoyantaan. Euh, li ñuy laajte mooy ban place la am fii ci làmb Sénégal ak euh, yan ñooy adversaire am potentiel am ak tamit euh, moom instant bii nii ñi muy laaj ko ci mel ni Reug am a neex ak yi nga xam te ni moom mooy guy gi est-ce que ñooñu ay adversaire am ndax gis nañ mu ciblé ñooñu suñu deuxième partie ñi ngi am li nga xam te ni moom mooy bilan écure xam sa cosaan ndax nee naa leen xam sa cosaan kon niñ ko defee woon rek éco dit Balla Gaye ak yeneen yeneen tey nag bilan écurie xam sa cosaan la jël ma fas yéene ci ànd nag ki nga xamante ni moom mooy sama chéri sama lépp muy bàyyi jiili loolu mooy li nga xamante ni moom lañ leen fas yéene tegal ci table bi. da ngeen jëf yi si ñi ñuy suivre sur wasaare TV eh, wasaare lamb wasaare TV dégg ni moom moo euh, ñu war a nee ban place la war a am fii ci Sénégal ak ñan ñooy ay adversaire potentiel am euh, dañu seet woon ñi nga xamante ni ay expert lañ mu wax ci li nga xamante ni moom moo ci loolu euh, Jamaïcain mi nga xamante ni moom moo ko tëggaloon moom ak Baye Mandione tamit seeti nañ ko euh, du jànje ko président des amateurs wax na ci ak ki nga xamante ni euh, moom mooy Gora Ndoye président des jeunes amateurs mais dañuy dem déglu ki nga xamante ni euh, moom mooy Iba Kane bu suñu làmb am na lu mu wax ñu dem te ñëwaat. waaw Fatma maa ngi lay nuyu di la ziar di rafetlu sa émission bi. waaw li may wax ci kaaw xoyantaan moom ah, du bari te du gudd waaw parce que man daal li gis ne pointaan daal au niveau de Sénégal mburu combat préliminaire la waaw bu nekkoon fii moom il faut mu bëri si combat préliminaire il faut mu rampi waaw benn mbapatam est-ce que li mu mbapat bëri na loolu c'est pas c'est à vérifier mais en lutte avec frappe gis naa ne moom daal mburu combat préliminaire la waaw il faut mu bëri ay premier combat préliminaire deuxième troisième quatrième soog a mun a àgg am fii grand combat parce que fii mbër yu bëri fii dañu ramper avant ñuy am sax grand combat waw dañu dañu mbapat ba oo soog a ñëw euh, am ay combat préliminaire ñu leen di yéegal di leen yéegal waaw peut-être léegi la yàqu rek nga jékki-jékki rek mbër du def combat préliminaire sax ñu jox ko ñu jox ko ay ay grand combat ndax lan ay car wala ay billet parce que fii booy seet Yékini ak Tyson je pense ñoo fi ñoo fi deful combat préliminaire mais ay ñoom Balla Gaye ay ñoom Modou ay ñoom euh, Eumeu Sène Euh, ay ñoom Lac de Guerre ñooñu dañu bëri com combat ay combat préliminaire avant ñuy am ay grand combat donc gis naa ne daal xoyantaan moom pour buy woow euh, yootu ay bay ma ñoo na ci ama neex ak ak ñeneen ak ñeneen gis naa ñu mu war a bëreel si ay mbëru combat préliminaire ak ay joon Kara tey war na mën a bëreeg ñoom ay combat préliminaire ak ñeneen ak ñeneen peut être sama xel moo xaw a rek mais ñu mu war ay onde le fou war na mën a laaleeg ñoom ah, ay onde le fou ah mun na war a ay fils de Zallo te yooyu ay combat préliminaire sax la war a nekk comprendre ñooñ ñooy ay classe am mais pas ay amaneex ay amaneex dafa burlenge amaneex c'est plus de dix ans d'expérience burlenge bàyyi ma ñoon c'est plus de vingt ans d'expérience bërëg tey Modou Lo bërëg ay ñoom Boy xam nga ak ñeneen ak waaw bàyyi ma xoyantaan ndax xam nga léegi moom làmb ji dafa yàqu làmb bi business la làmb ji business la ah, xoyantaan mun nañ sax ba ak ak ak parce que làmb business lañ nekk donc xoyantaan baay ma ñoom tam bu amee euh, làmb la rek mais du làmb boo xam ne jar naa dóor sa doom quoi vraiment amul benn amul benn enjeu sincèrement amul benn enjeu parce que baay ma ñoom gis nañ ne moom nekkatul si dara xam nga gëj na am ndam lu muy wane ci biir combat yi mooy loolu. xoyantaan mbër buy débuté la donc fii moom làmb bi loolu combat ba moom combat business la rek ku nekk da si ut xaalisam benn som dugal ko si jeex na kenn li nga xamante ne moom mooy bakkan bu suñu làmb li mu wax parce que kii nga xamante ne moom mooy xoyantaan ah, wax dëgg yàlla nee na mbëru combat préliminaire la bien vrai que nag fee mu nekk ca Gambia ma ngi fay toj moom moo nekk seen li nga xamante ni moom mooy seen roi de arènes mais pour ñëw Sénégal pour bëgg fee compétir yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci kaw day xaw a jafe ndax am lim na ay mbër sax yoo xamante ni mën na bëre ak ñoom ko ci mel ni John Kara de de Zallo ñi ci kaw da nga war a bëre ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk suuf ñu xam li nga mëne mais tamit ah comme que tamit làmb dafa nekk loo xamante ni kon ni ko Ibakan waxee rek euh, euh, sport de business la parce que gis nañu combat bi nga xamante ne moom ak euh, Baye Mandione li nga xamante ni moom moo amul ndax nee na même combat bi sax bu ñu ko tëggaatee tamit nekkul combat boo xamante ni gars yi dañ ko jox importance de trop parce que tamit ñoom ñaar seen combat du saf xorom du saf kii du saf xorom du saf suukar parce que ñëpp xam nañu Baye Mandione instant bi ci li mu nekk du samay kàddu nag kàddu Ibakan ndax nee na Baye Mandione instant bi wax dëgg yàlla kiwatul dara Euh, nekkul woon Baye Mandione euh, bu njëkk ba am na différence daal bu bari euh, dañuy seet na ki nga xamante ni moom mooy Gora Ndoye président des jeunes amateurs moom tamit am na lu mu wax parce que amateurs yi ñoom dañ cee am wàllu ñu seetu ko tamit ñu xool lan la wax ñu ñëwaat. waaw man la Gora Ndoye président des jeunes amateurs waaw xoyantaan bi nga ma laaj nag moom Fatima dinaa ci sawara parce que xoyantaan tey mën nañu wax ñun waa Dakar mën naa wax ni miinaguñ ko bu baax peut-être buñ ko xamee mën nañu wax ci dernier combat mi lañ ko xam. rawatina combat am ak Baye Mandione nekk combat boo xam ne combat capital la woon waaw mu nekkoon combat boo xamante ni amateur yëpp ñu ngi ko doon xaar mais am tey ku mel ne xoyantaan tey ñun adversaire yi muy cité ñii ñun ñi nga xamante ni ñun Dakar la ñu féete ñun tey buñ ko doon jox adversaire duñ ko jox ñooñu parce que tey diggante ama neex bi muy wax ak diggante guy gi bi muy wax ak diggante rëg-rëg bi muy wax dèjà guy gi rëg-rëg seen combat taxaw na kon kooku mënul fa am adversaire ama neex bi muy wax démb maa ngi koy seetaan 2STV ak Modou Mbaye muy wax ay adversaires yoo xamante ni tey yaakaar naa ni romb nañu xoyantaan comme yàlla mayoon ko chance mu am chance ku mel ni Baye Mandione nga xamante ni moom du rejeté adversaire moom boo ko fayee lu ko jàllale day bëre te gis na ni seen combat combat la woon bu waroon taxaw mu jël ko bëre ak mu waroon a bëre ak moom yàlla dogal li ci am am ci tey mun naa wax moom mooy le grand perdant parce que Baye Mandione moo ko may chance te Baye Mandione tekkul n'importe qui ci ak ku nekk tey jii ci leader yi nga xamante ni tey ñu ngi ci kaw kon tey yàlla dogal na seen combat avorté su fekkee bëggaat na ko su fekkee bàyyam ñoon nangu na ko mayaat chance ñu nangoo bëre Dakar ndax yaakaar naa dañ ko aj Gambie fële laay alhamdu ñu bëriwaat Dakar ñu leeral bu fekkee bàyyam ñoon nangu na ko bu fekkee nangu ko man ay adversaire potentiel am yi gis tey man fii Dakar tey su doon cité tey ama seen junior tey laa koy jox parce que ñoom laa jàpp ne sax buñ koy bu ñuy ak moom sax dañ koy may chance parce que lamb aussi étape par étape la mais mënoo ñëw yëpp bëgg bëri kaw tey exemple bi ma la ci jox dama koy jox tey ci ku mel ni Rocky Balboa bi mu ñëwee Sénégal ne dafa bëgg bëre dañ ko nit carrément da war a am fooy jaar mais dafa ñëw rek ciblé Balla Gaye ciblé Bombardier maanaam ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci kaw surtout Bombardier bi nekkoon roi des arènes mais malheureusement gis nga bi leen boolee ni mu mujj demee ñëpp xam nañ ni kii bu tamit mën na réussir li mu mais du fi am dara parce que ñi fi nekk tamit dañ ko dañ ko raw ci lépp comme xoyontaan aussi tamit am na ay adversaire dama jàpp naa adversaire am la Grand Mbagnick bi nekk ci Boy Niang adversaire am la Didier bi nekk écurie Doudou Baka la Tyson gin gi neew adversaire am la Jordan bi nga xamante ne mu ngi xam sa cosaan adversaire am la Pakala bu mbuur adversaire am la Elton adversaire am la doomu Dangu adversaire am la Limousine adversaire am la Cobra aussi adversaire la ba ci Goro Sock jàpp naa ne ñooñ ñëpp tey jii adversaire am la yoo xam ni mën na bëri ak ñoom mais par rapport ak ñi mu cité moom gëm naa ne seen làmb du gaaw a taxaw. ki nga xamante ni moom mooy euh, président des jeunes amateur bu nekk euh, Gora Ndoye moom tamit ñu koy remercier bu baax a baax dégg ngeen tamit ci li mu wax ndax nee na euh, ki nga xamante ni moom mooy xoyantaan miinuñu ko bu baax a baax ndax ñi mu tàmmu ci adversaire ñooñu duñu bëre ak moom moom bien vrai que ni combat ak Baye Mandione taxawoon na mais pour ñu bëre waat ko Gambie ndax gis nañu Baye Mandione dañ ko aj à vie ne bëgg nañu leeral combat boobu soit mu jël ñi nga xamante ni donte sax dañ koy may chance euh, dégg nañ mu tudd ki nga xamante ni moom mooy Eumeu Sène junior ay ñoom Cobra ay ñoom Jordan neen tamit mën naa bëre ak ñoom pour ñu xoom tamit euh, xoyantaan tamit bu mu mënee ndax euh, xoyantaan daal man daal. mais mbër day osé mbër day osé ñu koy nuyuwaat nag bu baax a baax moom Gora Ndoye kàddu yi am na solo dañuy dem siituwaat ki nga xam xamante ne moom mooy du Diagne ko mu nekk président des amateurs aca kàggu ñu dem seetaan émission bi maa ngi félicité Fatima di la encouragé si émission yi ngi def si lamb waaw comme question bi li mu bëggoon wax rek si làmb ji mooy euh, mbëru Gambien bi moom dëgg yàlla roi des arènes la mu dëkk mais nag war ñëw rek tamit Dakar bëgg jël loo xam ne nii aussi amu fi na bëri xale yi ñu xool ko xam moom nan la mëne ba pare donc am na mbër yu mu mën a mbëreel jarul mu fi tudd ay tur mais mbër moom bu dee jamaykee moo koy dëkk moom jamaykee na xool xale yu mu mën a ñu ñam ko ba xam lan la indi lan la jëlee Gàmbi ak lan la fi teg loolu mooy yàlla donc maa ngi leen di félicité di ko félicité moom tamit mbër bi di encouragé jamaïcain parce que gis nañu vraiment muy organisé lu bari donc si làmb di góorgóorlu ñu ngi koy encouragé bu baax di jota Fatima ñu ngi man daal li gisoon daal mooy mbër mi daal na xool ñeneen ñu muy bëreel parce que parce que ay guy yi ay rëg-rëg ñooñu daal pour man waa di ko jaajëfalaat bu baax a baax muy président des amateurs mu nekk ki nga xamante ne moom mooy Doudou Diagne Diecko ngeen tamit moom ba léegi li mu wax nee na pour xoyantaan ñoo jël ñi ci kaw il faut que tamit moom ñu testé ko mu jël ñi nga xam ne ñoom ñu ciy suuf ndax d'accordul ama neex d'accordul Reug Reug d'accordul ki nga xamante ni mooy ñi nga xamante ni daan moom la sible ñu leen di jaajëfal bu baax a baax euh, man nag euh, jàngat bi ma ci am mooy muy xoyantaan euh, wax dëgg yàlla comme que ñëwagul Sénégal bëri fii nii moom na ñëw wane boppam bëri booy yi nga xamante ne wala mu tànn booy am nga xamante ñoo gën a saf wane boppam mën a jëm ci kaw mais nag ñëw rek pour bëgg a jëm ci kaw tamit day xaw day xaw a lii ndax promoteur bu koy tëgg tamit il faut que mu teste ko ñam ko ñamaat ndax boo yaa ngi fi mais ay ama neex ndax gis nañ tam mën nañoo jot exemple ci ki nga xamante ni moom mooy Rocky Balboa dégg nga sànq ki nga xamante ni mooy euh, góorandooy li mu wax ndax nee na gisoon nañ fi Rocky Balboa ba mu naan ay ñoom Balla ak ñoom euh, ki nga xamante ni moom mooy Bombardier gis ngeen MMA bañ fa demee ni ko Bombardier def noonu la rek wax dëgg yàlla xoyantaan mbër day osé mu a ciy encouragé bu baax baax mais ñun waa Sénégal bëgg nañ laa gis xool tamit nan nga mënee parce que tamit su ma juumul sa combat ak ma Mandione dañ lay soog a découvrir naam nag sa tour mi ngi doon circuler mais sëñ la gën a découvrir te malheureusement combat boobu amul comme donc daal ñëwal Sénégal fii nii nga ñëw compétir ñoo xam la daal mën a xam li nga mënee ah beneen bi mooy tamit euh, euh, dafa am koo xam te ni euh, kàggu suma mag la suma xarit la depuis Tivaouane di ko nuyu bu baax a baax muy Mbaye ja nekk koo xam te ni kenn la ci man di bégee wasaare nag bu baax a baax grand maa ngi lay nuyu di jël di jël nuyoo bi nag dama bëgg nga jël nuyoo bi tasaare ko fi nga xamante moom mooy waa kër Matar Jamaïcain ñu koy nuyu au passage bien vrai que ne bëggoon nañ tamit loolu loolu Euh, mu kii tam bëggoon nañ koo jël mais tamit euh, moom xam naa incha allah dina am lu ñu leeral parce que tamit am nañ sax wax nañu benn information boo xamante ni que ni xoyantaan ak ki nga xam ne moom mooy double jox na double Tyson euh, nga xamante ne moom mooy avance mais xoyantaan ak double la bëgg tëgg fay ca kaw la ñaan yàlla rek yàlla na sotti ak càmm xanaa di leen tàggoo tàggoo bu dul tàqalikoo di jox ñëpp di daje ba suba incha allah mais nag kàggu dañuy dem ci li nga xamante ni moom mooy deuxième partie ndax annoncé woon naa ko sànq. ci dalal ki nga xamante ni sama chéri sama xarit muy jii Djili ñu fas yéene waxtaan ci li nga xamante ni moom mooy bilan écurie xam sa cosaan euh, xam naa nag après dinañ dugal ki nga xamante ni moom mooy entraîneur bi muy Modou Diop euh, ñu wax ci li nga xamante ni moom mooy bilan bi ak euh, ba ban satisfaction la ci am ak tamit instant bi écurie xam sa cosaan fan lañ jëm